di xew-xew bu ama am solo muy màggal guddik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku def muy sayyid al Hadj malik radiyallahu taala anhu ñi ngi tiwawon ak groupe Futur Média yeb mo xam télé bi mo xam journal bi mo xam izfm comme ni ngeen ko gisee tay nak ñu seet si kilifa gu mag muy imam Baye Moussa Niang di kilifa كم نيكو اي واي جورم نيك نيك مقدم تي مقدم شي الحاج مالك تي تي مامام با تي واي جورم با تي موم مو نيك نيك امام تي زاويا سيرين بابا كرسي رضي الله تعالى عنه تاي موم لان لين سيتسيل ني وقتان اك موم كو سيتسي امام نك دفنا لي اوب سولو تي لي غاي واخ اك موم موي تي والو جاك اك امبورطانس بي مو ام ci biir islam rawatina ban dayoo la Cheikh El Hadj Malick jox jàkka ku nekk xam na ni Maodo li mu tabax ci jàkka kenn xamul nu mu toll li mu def ci ay zawiya kenn xamul nu mu toll fu ko Seydina Cheikh yemale woon rek yokku na ko ba mu ba mu ba mu ëpp bu yàggul rek ñi ngi inauguré zawiya bu mag ci Amérique noonu la ko defee ci àddina bi fépp kon incha allahu dañ koy jox kàddu gi ñu laaj ko ci loolu gannaaw bu nuyoo ba pare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 di la ndokkeel ci weer yi di la delloo ndokkeel di la sant di la gërëm ndax danga ñëw ci turu groupe euh, GFM waaye danga nga dëkk Tiwaawan kuy sa baay Xaaj Babacar Mbay bu sëriñ Abdou Aziz si bu sëriñ Cheikh Tidiane si bu sëriñ Mansour si kuy sa maam góor gi ma dikk Mbay bu sëriñ Babacar si ca xëy ba ci xam-xam ba ca wilaaya ga fa tabarakallahu arab yi dañuy wax ni kullu shay'in yaudu ila aslihi yaa ngi liggéey ak ñi waaye dangaa def sama nin kon bala ñuy dugg ci waxtaan wi ñu ngi lay sant di la gërëm di la encouragé ñu ngi topp itam say émission ci télévision bi ngay laay biir jullit di xam-xam surtout ci wàllu azkar وينك لولو لا غروة ومن يشابه أبه فما ظلم كن نرسى باي واج ندخ سي مام يب لن لنا خميك أي تري يالا أك باتين كن جزاكم الله أنا خيرا لينغ لا يتم إن شاء الله لنك من يتون إن شاء الله ها الحمد لله رب العالمين كن نمك وخيرك كن إمام لنو بغ ندوغتي موي نجريني جاكتي بابا وحج مالك فتبارك الله yaa ngi laaj lu am am solo muy ñëriñu jàkka ba la ci dugg ki tax ki tax ñu ñu ñuy waxtaan muy Seydi Hadji Malick radiallahu anhu taxawaayam ci jàkka ak islaam importance bi mu jox jàkka moom Seydi Hadji Malick yàlla ñu yàlla fayal yàlla ñu yàlla fayal nitu yàlla yi ci réew mi yëpp ndax loolu lañu ñu yàlla sédde loolu la yàlla sedd Sénégal سمام سيدي حاج مالك رضي الله عنه نيكو ماغ ني نتالي دا فا دم بيت الله الحرام غير جوخ اجام بيمو باري تيوفيلم سي سيدنا محمد عليه السلام تنكوكو با بغوت لو نيبسي مو فاس تي خولم ني دا فا بغا ديف حسن المجاوره مع النبي صلى الله عليه وسلم بغا دكالي يونت بي ليس تي دوندم بس بن نار ديكو سيرلو تي ملوكانم xëy am ak cofeelam ci yonent bi alayhi salaam mu kobos ko ni ko dama la doon ñaan boo xëyee suba maa la invité ndékki mu dem wuyu bi mu demee fa tabarakallahu ah, ñu mu waxtaan ak kooku ci xam-xam ci biir waxtaan wi naar bi xamal ko ni ko yow de sa yéene bii nga am ni da nga bëgg a toog mag tu safarat yow lii safarata mooy irji ila ahlik li tatbiqi xadisi nabii xaysu yaqulu balligu an nii walaw aaya ni ko yow de lii safarata mooy nga dellu sa dëkk ngir dëggal waxi sayduna muhammad bi ma wax ni ku mën na jottali sa morom mu ni fa mu toog mu yëg ni kii waxul yonent bee ko yónni mu dellu ci rawdu ba jàpp ci baaraasu sayduna muhammad ñaan fa ñetti ñaan ni yàlla man de dinaa dellu waaye maa lay ñaan suma delloo ci réew ma place jaamukaay yàlla yi naan jàkk yow yàlla maa lay ñaan ma ëpp la ci ña ko fay def ñaareel ba maa ngi lay ñaan suuf soo xam ne dina fa tuur sama ñaq ngir dunde ko ñetteel ba itam ma lay ñaan lii may taxawal muy wàllu daara ak fekk ndoona sayiduna muhammad alayhi salaam yàlla bu kenn xàmmee sama njaboot ak sama taalibe ci mbaax ñett yooyu la fi ñaanoon te xaaj malik sa turandoo yaakaar naa ni eh, yàlla nangul na ko ñaan googu li tax nag mu tànnoon loolu ñaan fa jàkk xaaj malik jàkk dafa nekk loo xam ne ci lislaam réussite islaam mi ngi ci jàkk ndax boo xoolee histoire Seydina Muhammad alayhi salaam keroog bi mu jotee ndigal yàlla ni ko jógal màkka nga ñëw ma Madinatul Munawwar bi mu ñëwee ba Quba Quba trois kilomètres la de Médine la mu njëkk a def mooy samp jàkk ndax état ba mu bëggoon taxawal ca lis la ca ca ca a Munawwar ndax fee pas-pas la fa doon samp ca màkka ba mu ñor yonent bi jox ko ndigal yàlla jox ko ndigal bu bëgg taxawal état islamique ci Madinatul war la mu njëkk def mooy jàkk moo tax samam Seydi Xaaj malik ni aqama inda al quba daalan wa assasama qad kana ussisa fi taqwa ma al udumi juróom-ñetti fan la dox diggante Makka taxaw ñeenti fan Quba la mu fa njëkk def mooy jàkk masjidul Quba di jàkk bu nu barkel alhamdulilahi rabbil alamin من وزاك أول ما صلى النبي به جماعة علينا مع صاحبه الكرم فوفل نجك جل أك بولومي بكنا شيء إمبورتانس بموجه جاك مبينة عليه السلام كروك شيء قتل بموجه تيسوس بأم ديجل بتبخ فجاك مم شيء بحم motak ndigam di bokk ci ñi nga xam ni ñi ngi tabax jàkk ji moom sallallahu alayhi wa sallam ak na mu toll ci yàlla dégg nga di tabax jàkk ji takk ndiggam ànd ak mbooloo mi di tabax ba baaraam bi fafati ko di nàcc ñu ne ko toogal mu ni mukk ma ant illaa usbiun damiiti wa fi sabilillahi ma laqiiti la mu tontu baaraamam mu ne ko aat ah, baaraam te nga muñ te continuer ndax kat xandoor bu dammee ca waar wàcc na fa tabarakallaahu loolu bu amee li yuallima ummatahu abra usuri taarix anna lil masjidi makanatun wa manzila yonent bi alayhi salaam bu dee def loolu takk ndigam bokk ca te mën na toog ñu koy defal day wane ni importance su jàkka ak la mu ci bëgg a tabax loolu nag la si El Hadji Malick genmandiku ba tax mu ñaan ko fa tabaarakallaahu jàkk yàlla boo xoolee ci xikmaam continent yi ni ko doxale ñii dañuy nekk tey ci bëccëg ñii ne ci guddi ñii ne ci ngoon ñii ne ci suba yow yaay nelaw ne yaa ngi ci guddi mais waxtu wi ngay nelawee am na ñuy nekk ci bëccëg di jaamu yàlla moo tax vingt quatre heures sur vingt quatre sur le monde entier waxtu wu nekk am na continent am na réew muy nodd waxtu wu nekk am na réew muy julli ngir lan ngir yëkkati baatu yàlla ngir lan ngir continuer mission Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam te loolu fu ñu koy defee ñu ngi koy defee ci jàkk moo tax ñu ni euh, investissement bi ëpp doole ci jullit mooy jàkk ndax yonent bi alayhi salaam nee na ku tabax jàkk yàlla tabaxal la château ci àjjana man banaa masjidan man banaa lillahi masjidan bana allahu lahu baytan fil jannati yonente bi alayhi salaam dellu wax ni benn sondel sax boo ko taalalee jàkka yàlla taalala dinamoo ci àjjana loolu mooy lan bëgg ñëpp sauver moo tax maa ngi xool benn bi ma demee di ziyaare Seydina Cheikh ca Maroc ma dem ca jàkka ji ba fa gën a mag ci Mouhamadul Khamis tabax ko. Mm-hmm. Hassan de astafurlah. Mm-hmm. man laaj nu mu demee ñu ni euh, dafa def lu rëy. Mm-hmm. dafa fexe ba ni dëkk bi yëpp. ku nekk na nga def sa contribution. ku nekk benn dërëm sa baax na. ku nekk dërëm baax na su ko defee dërëm boobu ñëpp bu pare ñu ni ñëpp ko tabax ndax que ñëpp di contribuer ngir sauver nit ñi rek. Euh, jàkk nag buñ ko waxee dafa am ñu fay daje. mbooloo mu fay daje di julli te aljamaatu rahmatun wal firqatu azabun xam nga xaj malik yàlla dafa fonk mbooloo jox ko importance moo tax bis bu nekk ñuy daje juróomi yoon ci jàkk ji ndax yërmande wàcc buñ fa jógee semaine bi jot ñu tëj jàkk yi ci koñ bi yëpp dem daje ci benn jàkk mbooloo ma yokk ñu ne déedewaay ñu demaat ba at mi jeex ñu woor weeru koor ñu tëj jumaa yi tëj jàkka yi ñoom ñëpp ñu daje ci benn jàkk bu mag wala nu ci àll ba julle fa iit muy koor muy tabaski mu jeex yore ni bu meen yam foofu de na ku nekk jóge benn continent ngeen daje ci makkatul mukarram gis nga kon mbooloo ni ko yàlla joxe importance ndax lan la ci nekk ci yërmande ak la ci juddoo loolu nag la Seydi Hadj Malick ñaanoon fa tabarakallahu te itam nag Seydina Jibril alayhi salaam mooy yonent bi nga xam ni moo nekkoon intermédiaire diggante subhanahu wa taala ak Seydina Muhammad maanaam bu bu bu mooy taalibe yonent bi alayhi salaam waaye moom la yàlla di jox dossier ni ko joxo Seydina Muhammad te bu koy jox dina xam la ca dossier ba moo tax bis mu dem ci yonent bi ba ñëwaat ni yàlla man day def nga ma yonent def nga malaaka def astaghfirullah def nga ma malaaka te malaaka yi laa yàkkuluna wala yashrabuna du ñu lekk du ñu naan du ñu sëy amuñu bakkaar ku ci pare àjjana nga jëm mu ne ko ànd ak loolu lépp nag bu dee mu doon tey man yàlla damay ñaan nga def ma doomu aadama wa jibrilu sama xat taman naa bi sabaatin <clears throat> sa un bii ka an ha an yakun ibna aadama salaatum bi jamiin ñu ne jibril lan moo tax nga bëgg a nekk doomu aadama jullit mu ne damaa xam li ci importance julli ci mbooloo ma ci jàkk ci donte le malaaka la ma bàkkaar sama àjjana leer na waaye bu démb doon tey bu ma yàlla di tànn loo dama naan ko moo def ma jullit ndax li ma gis ci dossier yi ci yool bi ci julli ci mbooloo jibrilu sama xatta mën naa bi sabaatin dafa dafa ngéejoo woon nekk nekk doomu aadama ndax juróom-ñaar bi ci njëkk mooy salaatin bi jamaa maa julusin la aalamin bi ko ñaareel ñu ne ko lu tax mu bu ma nekkoon jullit topp ci gannaaw Seydina Muhammad mu may ma benn waxtu rek ma toog ci kanam boroom xam-xam muy wax may dégg la ci nekk ci yool ëpp na jaamu at benn laxza nga toog ko ci kanamu borom xam-xam mu wax diine wax alxuraan wax sunna ëpp na doole jaamu at jibril ni man kon potentialité yooyu ak ak xiyam yooyu bu démb doon tey buñ ma tànn loo jullit lay nekk ba ko ñetteel wa iwaawi ay teemin li ci ku ñàkk wayjur nga jël ko def ko wayjur la ci nekk ci ngëneel kenn xamul lu mu toll wa isqa aussi sama nga fekk ku mar wala mu xiif nga jox ko mu lekk ba dallu sauvé nga ko ah yaadatul marda ak lan nga fekk ku feebar nga seeti ko ah wa tashi ay mayitin sa mbokk génn àdduna nga gunge ko ba sëg ya wa islaax bayna naasi fi ma tafaaxama ak ñaar ñoo xam ne seytaane dox seen diggante nga fexe ba yéwén na leen ba ñu nekk jubo jibril nee na mhm. juróom-ñaar yooyu tax na man bu démb doon tey jullit lay doon waaye bi ci ëpp solo nag mooy julli ci mbooloo kon ñun war ñoo xam li ci importance julli ci mbooloo loolu nag la xaj Hadj li jàng ba moo tax mu ne yàlla maa ngi dem Sénégal mhm. waaye maa ngi lay ñaan sama mission daal fu jàkk nekk na ci sama loxo nekk wala sama loxo njaboot te yàlla may na ko ko fa tabarakallahu bokk na ci njëriñ jàkk boobu mhm. mom sayyid Hadj malik lu mu bind ci téere rek bind ko ci xelam déedéet dafa fekk aya mu wéy ko wala mu fekk hadith yonente bi alayhi salaam mu wéy ko def ko wéy neena bu ngeen xamone njëriñ bi ci jàkk bokk na ci ñu ni ko mu ni yonente bi alayhi salaam nee yàlla guddi gu nekk dana sëpp ba juróom-ñaareelu asamaan gis jaam yi liñ koy tooñ mu xëcc mbugal mu rëy daan na ko def mbugal na firaw na mbugal na xamu luutin mbugal na ay umam ci kaw benn suuf bi indi na ay lépp nu nekk mbugal googu jóg fi mu ni nag bis bu nekk mu bëgg xëcc mbugal yu mel noonu xëpp ko ci jaam yi waaye bu xoolee ñi nga xam ni njël jàpp nañu dem ci jàkka ji rek mu delloo boobu mbugal kon Xaaj Malik yow mi nga xam ni ni ma la xamee yaa ngi jóg njël dem ci jàkka ja non seulement sauvé nga sa bopp moo mais sauvé nga ki fanaanoo def bakkaar mu ne itam yonent bi alayhi salaam delu wax ni bari na ku fanano bakkar ba yàlla tax mu indi mbugal waye bu xole ki tok ci jàkka ji yor kurusam nan astaghfirullah mu delu won bugal ko motax tax mu ni Seydi Xaaj Malik ni wa kam azabin sarrafa arrahman min عمار بيته بلا خلف zukkin وكم عذاب صرف الرحمن من عمار بيته بلا خلف xulfin bëri na mbugal bu yàlla delloo mhm. te tax li tax mu delloo ko mooy ña nga xam ni jóg nañu seen yoon nekku ci ñu jëm ci jàkk ja wa hakaza mustaxfirul asxaari mbugal it yàlla dina ko delloo ndax ñi nga xamante ni dañuy toog ci jàkk ji naan astaxfirullah kaza ruwiya anil muxtaari mhm. anil nabiyil muxtaari mhm. kon ñaar ñii nañu xam seen bopp ndekete bari na ñoo xamante ni ka tax nga tal ko talu ko te nag dellu mbugal googu yàlla waxul ni ci alal waxul ci leneen mi ngi ko tudd ci jàkka ñi dem jàkka ak ñi nga xam ne ñi ngi toog ci jàkka ji di wax a astafurlah xam-xam boobu ak njëriñ boobu la Seydi Hadj Malick taxawal ba tax mu ñaan ko ci màkk pour yàlla may ko kàttan muy taxawal ay zawaye ak ay jàkk fii ci senegal fa tabarakallahu bokk nañ ci njëriñu jàkka toujours li yàlla gën a bëgg ci doomu aadama wa ma xalaqtu jinna wal insa illa li yabuduni ruux sa am la koy dundal mooy jaamu yàlla ak tudd yàlla loolu ci jàkk te xaaj malik seydi malik dafa am lu mu mu mulaaxasa bu mu def radiallahu anhu xam nga fii ci àdduna nañ jël tey kilifa gi yàlla teg ci bopp réew mi mooy président Macky Sall tey bu fekkoon ni da ko soxla da ñaan rendez moom moo lay may rendez ne la na nga ñëw bisu altine diggante huit heures laa la may ba neuf te noo mën a def danga def ba huit heures fekk la ndax li nga war a waxtaan ak moom ci réew mi boo demee nga préparé ko waaye yaa ngi bàyyi sa xel ni neuf heures mu jeex yàlla subhanahu wa taala moom du jox kenn rendez moom dafa may jaam yi yow yaay fixer sa bopp rendez-vous ndax boo demee jàkk rek boo dugalee sa tànk rek am nga rendez ak sunu borom yow yaa bëgg rendez-vous yaay jox yaay la la rendez-vous te boo toogee itam yaay xool ban waxtu nga fay nekk ba ban waxtu ngay dem kon yaay joxe rendez-vous yow te it yaay limité sa bopp bu dee ci buur réew mi ñoom ñoo lay jox rendez-vous ñoo lay limité du dégg li ma wax te loolu ci jàkk nga ko mën am ndax boo yore sa dem di jàkk dem ci jàkk ji la neexee toog fa fukki waxtu yaa ngi ci rendez bi fa tabarakallahu yàlla itam subhanahu wa taala bokk na ci yërmandam ci jaam yi importance su jàkka bu ñu fa nekkee di julli bu xoolee mbooloo mi day bëgg woo malaaka yi ni leen gis ngeen sama jaam yi de seen taxawaay man rek a tax te kenn woowu leen dégg benn nodd rek bàyyi seen kër yi bàyyi seen lal bàyyi seen lépp bu xoolee julli gi ni ñu taxawee mu xool imam bi ak comportement ak matam bu nangulee imam rek nangul mbooloo mi yëpp waaye nit xuliqal insaanu daifan nit mën na manqué mën nga julli ak sobe te yëgoo ko mën nga julli sax ak toj te yëgoo ko bu fekkee imaam am na lu ko dal te yëgoo ko bu xoolee ci kenn ci maamum yi bu ko nangulee rek nangul ñëpp ñoom ñëpp tey bu ñu manqué woon seen julli bañ a mat bu xoolee ci discipline bi am ci jàkk ji rek discipline boobu yàlla dëgg ci nangul imaam nangul maamum yi jalla jalaaluhu azza kamaluhu te Seydi El Hadj sa maam radiallahu anhu dellu wax na ni pour ñaax doomu aadama yi mu ni yow mi nga xam ne danga nga jóg njël ni cas sa sete la di jàpp ndox mi sedd nga xaw a lox nee na loxoo de sa yaram seddul ñu ne ko alu ah tax mu ni say bàkkar mooy lakk say ñaawteef mooy jeex mu ni maaxel xataaya wa mu kaffiratul zunub foofu wal وقت كراهة لهيب سيد حاج مالك نانا لي گنا گاو سي فر نياوتيف اك لك بكار مو جوك نجل باي لالب باي نيغب باي مباجما جيل ندخ مي سونغوكو نانا ماحل خطايا ميغي فر سي تيف ومكفرات ذنوب بوكنا سي لي گنا گاو سي دانيال بكار فهو الودو وقتو نياب بوبو وقت كراهة لهيب وقت وخم ني كو نيك بيغون گا سانغو سا مباج فورماسيون بوبو لا ديف مول ديفال طالبي fa tabarakallahu euh, bokk na itam ci njëriñu jàkka mm-hmm. yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na iza raaytum iza raaytum iza raaytum rajula mm-hmm. yaatadul masjida mm-hmm. fashhadu lahu bil imaani xam nga ñun dañoo ne gëm nañu rek bis bu nekk ñu naan euh, yàlla ñu yàlla nangul waaye yonent bi alayhi salaam nee ku yàlla may ngay dem jàkk mm. te yàlla rek tax xamal ni sa imaan yàlla nangu na ko incha allah mm-hmm. ah jàkkaangoog mm-hmm. yooyu la Seydi Hadj Malick xool mm-hmm. waaye jàkk nag di lu lu complexe complexe gi mooy man nga fa am njëriñu àdduna ak àllaaxira waaye mën nga fa yàqule ah. moo tax man dinaay wax ni man dans le monde entier benn nit laa gis mu taalif téere daf ko tudd ko adabul masjid muy Seydi El Hadj jël téere tudde ko tegginu jàkk ndax bërëb la boo xam ne mën nga faa góobe yiw nekk waaye mën nga faa yàqoo boo xoolee al imaamul malik radiallahu anhu bi nga xam ne mooy borom ngir mi fa tabarakallahu ngir mi mi nga xam ne moom lañ tënku mujj dundam dafa abandonné jàkk ak li jàkk di am solo yëpp demu ci moom imam Malik ñu ne ko lu tax mu ni waaw dama gis nit ñi suul ëdëb bañ fay def ak ñàkk teggin bi te ma xam ni yàlla wax na ci alquran ni wattaqu fitnatan laa tusibanna allazina zalamu minkum xaasa wa alamu an allaha shadidul iqab yàlla nee na na ngeen moytu ñax gu wow ñax gu tooy dana lakk goow wala ñax goow dana lakk gu tooy musiba du yem ci bopp borom mu ne loolu laa xam ba tax ma toog sama kër moo tax mu mu bind ci moom Seydi El Hadji benn téere tudde ko adabul masjid maanaam ban comportement wa nga war am ci jàkk ba man faa amee yiw te bañ faa amee amee fa musiba euh, la njëkk ci téere ba dafa ni booy génn sa kër na la yéene bu sell yëkkati xamal ni daje nga ak buur boo xam ni am na pay te dana fay waaw ki yéene bu sell yëkkati est bu demee ci jàkka war naa xuloo est-ce que war naa bijjante est war naa xëccoo est war naa tontu est war naa jël àdduna teg ko ci kanamam waaw moo tax mu ne na bi sell tey yonent bi alayhi salaam nee ku sa yéene sell nga ñëw ci jàkka ja booy dox tànk boo yëkkati yàlla faral la bàkkaar bind la tuyaaba Seydi Hadj Malick ne boo demee ci jàkka li nga war a jëkk a def mooy say dàll na nga ko fëgg dàll yi nga soloon fëgg ko tegu ca de nee na waxul nga mais na nga ko fëgg ba mu set nga xool bu amul dara lu tax nga soog a dugg ci jàkka ji mu ni booy dugg mm-hmm. na nga duggal sa tànku ndeyjoor mm-hmm. wax ni alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah allahuma ixfir li waftax li ababa fadailika war waftax li ababa rahmatika nga ñaan yàlla dajaf ak sa yërmande yàlla booy génn nga génne sa tànku càmmoñ julli ci yonent bi alayhi salaam ñaan yàlla mu ubbi la buntu ngëneel yi mu ni boo nekkee ci jàkka boo àggee nanga nga def ñaari rakk jullee ko jàkka ji nuyoo ko sunu borom bu fekkee ni waxtu wi ngay julli dagan na pour naafila ndax ci fiqhul imam maliki xam nga xaj malik ñu bëri dañuy trompé wu est-ce que xam nga ni xadis dañ koy interprété ndax yàlla ak yonentam du ñu détaillé moo tax ñuy taawil alquran di tawil xadis nabi waaye li gën a garaaw mooy fekk xadis rek ni taf ca yax ba firi ko moo tax yonent bi alayhi salaam nee na bu kenn toog ci jàkk ci ci nuyoo jàkk ji xadis la waaye nag la ciy taaliq ba mooy na fekk mu nekk ci waxtu daganu julli gis nga boo demee ci juma malaaka yi dañuy teel a dem ku teel a ñëw ñu bind la ka ca topp ñu bind ko ka njëkk moo ëpp yool di ko def ba im ba min bi ñëw ci minbar bi bu imam bi ñëwee ci minbar bi malaaka yi dañuy lem seeni kaaka dugg toog ndax jox solo imam bi ak déglu xutba bi ndax ci julli ji la waaw ndegam malaaka mooy toog foofu kon yow mi nga xam ne boo dugg see da war a toog bu fekkee fajar la ba ba jant bi yëkkatiku waroo julli bu dee tàkkusaan la ba ba jant bi sa waroo julli ñaa naa naafi la ci jàkk ji Seydi ma Malick nag nii heure boobu boo ci duggee te julli woo na nga toog nga wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar nga wax ko ñeenti yoon nga am yoolu ku joxe ñaari rakk yi noonu la tiimee téere bi di ko jàngale mu ni itam wastaqbil al qiblat maa gaddil basar wa xafidi sawti wali chaaril muqir nee boo duggee ci jàkka na nga jublu penku nga toog am am comportement concentré wu bul mel ni looy maa gaddil basar na nga wàcce sa bët ndax nga mën a teewlu xam nga nit mënoo teewlu ba pare fu ne nga wëlbatiku fa déedéet ku dugg nga xam xool ci kaw xool ci suuf boobu teewloo too dégg nga te it nee na boo yore sa course di wax wala ngay jàng na nga wax ndànk ndax nga bañ a gêner ci sa wet dégg nga Seydi Hadj Malick li gën a garaaw nag mu ne wa yakulul kalaama fiihi alxasanaat ka naaril xattaabi ruwi thiqaati nee na jëlee nañ ci yonente bi alayhi salaam mu ni wax ci jàkk waxu mbóorant mm-hmm. wax joo xam ne yëwanalul diine mm-hmm. amul importance mm-hmm. li nga defoon ci lu baax daf koy lekk comme ni safara di lekkee élastique dégg fa tabarakallahu yooyu lay jàngale di ko xamle mu dem ni wa dex ku fil masjid zulmatun la daa xabrin fa raaci man nose ba daa Seydi Hajji Maalik nee na ree ci jàkka li muy indi mooy lëndëmu bàmmeel te Xaaj Malik ñun ñëpp yàlla na yàlla dimbale nangu suñuy jaamu yàlla euh, li salaati nuurun azimun tushraqu fi qulubil muminin dañu ne julli dafa am leer day day génn ci xolu julli di ci ki teewlu xam nga ne Xaaj Malik leer googu xam nga lu gis nga jamono andi na ko am na am na làmp xew léegi yoo xam ne dafa naa dañ koy chargé ci courant boko ko chargé ba mu fees bu courant coupé nu muy def day déclencher wu ah mu coupé sa lampe déclenché wu gis nga julit sa bu jullee rek mi ngi chargé bopam ci leer googu bo jullee ya ngi chargé sa bop bu fekkee sa bakkan wadd na nag bu ñu la duggalee ci bàmmeel rek torche ba déclenché wu na chargé googu nga doon chargé mooy déclenché wu sa bàmmeel té dara du ko maye lu julli gu bax fa tabarakallah waaw mais am na am na sunu maam yoo xam ni. Mhm. te dëggum nañ ci bàmmeel téeméeri at. waaw bu fekkee seen i julli baaxul woon nag. te nga war a leeral sa bàmmeel. Mhm. yàlla nañ ci yàlla dimbale. fa tabarakallahu sa maam Seydi Hadj Malick. Euh, lool lool lool loolu la jàngale. Mhm. Euh, fa yàlla may ko nag ci Sénégal. mu jàng jàngale yare mas itam. jël téere bi rek mu nekk juge digganteem ak taalibe yi ndax moom léppam dafa niru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jël taalibe yi daf leen nawle nee nañ fii ci Tiwaawan toog na fi juróom-ñeenti at yoo xam ni benn yoon la mas a tàdd jàkk te dafa sëgg ci téere yi ba ñu taxawal mu jóge ci kër gi dem ñu sëlmal mu continuer julli ak ña mu àndaloon ndax dafa ni dañuy wax ni xusuus ci walu tarbiya dañu ni afdalu tarbiyati luzumul istiqamati nit boko ko yar sa comportement moko yar do wax yow sa comportement moy yar ki nga am te yar bi ci gën nak moy yar sa njabot ci diine ba mu xamé motax mu ni ala nabihul atba'a na ngeen fexe ba ba ba yee yi ba jàngal leen mu ni wa ta'limuhum fardun jàngal talibé yi fartal farata la ba ñu xam xàmme kooku mooy Seydi Hadj Malick boo gisee tey ñu jël point bi nga laaj ñu ko fa tabarakallahu yàlla nattoo ñu ñu nekk ci jàkka ja nga laaj ñu jàkka islam jox na ko importance waaye Seydi Hadj Malick dundal na ko tey ji tey li mu dem ci ay muqaddam foo dem ci Sénégal ay muqaddamam ñoo fa nekk ay taalibeem ñoo fa nekk mu dugg ci tariqa Cheikh Ahmed Tijani tariqa boobu xam ni kulluha mustanbita min alquran wa sunna li ko composé mooy astaghfirullah la ilaha illallah salatu ala nabi jumaam yaa ngoog jàkkaam yaa ngoog foo dem si kër sa riir noonu la ko xaaj mbay doon di woyee loolu daal la ñu indi woon ci gàttal ci Seydi Xaaj Maalik taxawaayam ci jàkka kullu ina in bi ma fihi yandaxu ndab lu nekk la ca nekk mooy seet Seydi Xaaj Maalik ndabam mooy taalibe yooyu waa alhamdulilah mbokk yi ku déglu sëriñ baay Moussa Niang eh, mi nga xam ne imam la ci waay zawiya sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala an ñu indi woon nag point jàkk ndax ku nekk xam na ni Cheikh El Hadj Malick bokk na ci li mu def fonde ko ci njabootam mooy kenn ku ci nekk yàlla nga teg ko palaasam jox ko itam limu mu moom Maodo noonu mooy jàngaleem waaye itam sa tariqa ak li aju ci sa lépp loo war a joxe ci sa wàllu diine nga def ci loo waaye moo tax tey ñu seet si imam waxtaan ak moom ci point boobu beneen euh, mënuñu ko seet si ba dem te duñ ko laaj euh, nidaamuhul mawdu mooy naka la doon nekkee moom see àlla haaj malik ndax euh, suñ seetloo jàkk bu jëkk moo doon université moo doon moo doon moo doon lépp jullit ñi c'est-à-dire léegi nag moo am nga julli rek تجاكجي باتيس بانغتي جي جولي تجات جولي سيل حاج مالك واخنا ني داول ديف نون خمنا امام دي نان كو تي لاج ريك ناخ مودو ني مودان خيي بان بان بان بان كومبورتمان لا دون دوخالي اي جاكام لول ان شاء الله لن بغا وحاج مالك جيري جيف لاج غولام سولو ناخ سيد حاج مالك رضي الله عنه ديغ ديغم دا فا كاوي وون خمغا تي الاسلام نيت مو ام تي بن نيت مو ام تي بن ناخ ديغا لي مسجد لمجامع لمزاويه انما الاعمال بالنيات بورون تبخ جاك يينا سي جاك كيس كيس دو سي مانا جولي جمعه واي سي تبخ با بو سي يينا جاك جمعه مانغا سي جولي جاك تبو جمعه جوبي nga جولي سي زاويه نك لي تان جوتي دوكو زاويه موي دا فا دولي كو كوم لي nga واخ فو تب ني لا زاويه سي الحاج مالك لوتاخ جاك جمعه داف رك تفال نا تفال نا ايكول سي ويدك tofal na salle de conférence tofal na morgue ca wet ga tofal na daara ca wet ga muy zaawiye xamoo ni moom bind na ni wa taalimuhum fardun walaw bi ijaaratin ne ne say taalibe nga jàngal leen farata la donte la sax mënoo ko nga fay kaneen mu jàngal leen moo tax moom gis nga ni mu yaatale moo tax ngay dégg ñu naan zawiya Seydi Hadji Mal ba ca Ndar zawiya ba ca Dakar zawiya ba ca Tivaouane fa tabarakallah ba fii ci Tivaouane sunu gannaaw boo demee quatre heures du matin ñëpp yow di jàng yow miin nga ko yow fi nga jànge fa tabarakallahu xam nga ko yow yow duma la ko jàngal at mu nekk ñi fi mokkal ci alquran ak ñi fi nekk ci borom xam-xam fi lañ ko jàngale di ci waxtaanu diine kooku nag ci formation Seydi Hadj Malick la kooku daal mooy Seydi Hadj Malick ci importance am ci jàkka ak ni mu ko doxale ak ni mu ko dëppale ak jamono fa tabarakallahu ah alhamdulilah jërëjëf Cheikh Alhaaj Malick noonu lay def ci jàkk defe naa boo ñëwee fii ci Tiwaawan ci zawiya bi di nga xam ni ñaata kenn xamul ñaata nit lay génne ci ay boroomi xam-xam wax naa bërki démb ni ku gis mu nekk di jàngale jàngale bu leer bu wér bu tegu ci yoon sel Hadj malik la génnee su ko jàngalul ñamu jàngale ko jàngal loolu nag mooy liggéeyu Maodo moo tax tey mënuñu woon ñëw ci gàmmo gi dëgg la euh, euh, imam ci fu fu nekk mën na fa waxee waaye bii da doon point boo xam ni sunu ci duggul woon ak moom ñiy seetaan dund ko baal xanaa laaj ko rek ban gis-gis la gis ci euh, groupe Futurs Médias nga xam ni génne nañ seen moyens yëpp indi ko fii ci Tivaouane ci télé bi ci IGFM ci l'Observateur ak yépp ngir liggéey feeñal liggéeyu Seydi El Hadj Malick kon euh, loolu foog ñu laaj ko imaam ak ñaan waaw Hadj Malick loolu dinañ ci tontu fa tabarakallahu lii ngeen di def groupe Futurs Médias mm-hmm. euh, القران دفا وخني ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون دا ني كريز ييب ميغي سي كريز دو كومونيكاسيون بو كومونيكاسيون جالي رك جام ام واي بو جالو رك كريز امنا لول القران واخ فتبارك الله يالا مايلين يين نين كوي جالالي كوكو ياخ القران لا يونتي عليه السلام دل وخني بلغوا عني تاي في ني توك ني دي دي دي واخ nit dina toog ca ndar di ko seetaan mm-hmm. nit toog ca ci àdduna bépp mm-hmm. donc yéen yéen a ngi jëfe alxuraan yéen a ngi jëfe sunna mm-hmm. te it lii Seydi Hadji Malick di def di màggal judd Seyduna Muhammad sallallahu alayhi a màggal fa tabarakallahu ko euh, mu teg ci alxuraan teg ko ci sunna ñuy ñaan yàlla ñu ko te yàlla rek tax euh, ala azimu laylal wiladati حسبة إذا لم يكن نحو الحرام عدول نغن مغل سيدنا محمد عليه السلام غير ديف كو جامو يالا تي بانتي رخ رنن لولو حرام كوكو داف بولي اي جامو يالا باسكو واخنا ني يما ديف ييب دالنا سما خيل واي مغل سيدنا محمد دلنا سما خيل دي موم حاج مالك موني تقربي ما ديف ييب دالنا سما خيل واي مغل سيدنا محمد دلنا سما خيل وليس لي عمل alqaaka yaa amali siwal mahabati wa taazimi wa salami kon nag yéen bu ngeen ci taxawee ñëpp mën nañoo ñëw donte de seen xol ñëw na ngeen leen koy jottalil ñi ngi leen di gërëm di leen sant waaye ngërëm gi ak sant gi nag jiitu na tey ndax gis nañ ni ngeen di dundale diine gis nañ ni ngeen di dundee alquran ak këru diine yi Tiwaawan Tuuba Njaasaan mbokk Layeen fa tabarakallahu kër alxaaj Abdoulaye Niass ca Kaolack fu fu fu diine am bu sell rek yéen a nga fa di ko jottali di ko dundal uhuh. ah wax dëgg yàlla nag loolu nag uhuh. yàlla mu am seen fay uhuh. ñuy ñaan yàlla yàlla sàmm leen te yàlla dëgëral leen bàyyi leen ak seen kilifa yéen a ngi jihaad yàlla na yàlla fay leen yiw kontaan nañu lool seen taxawaay jazaakumullahu anna xayran